départ ñi ñoo ñi ñooy nekk fii di dem ñu xool ñoom ñooy defar fii ndeysaan gis ngeen toilette bi toilette bu VIP bi yaa ngoog toilette bu VIP bi yaa ngoog ñu xool ndax am na am na waaw ah, oh, oh, oh. mais fii nit mën na fi tëdd ah toilette bu VIP bi yaa ngoog ndeysaan mais lii defar ko coono la laaj toilette bu VIP bi yaa ngoog ndeysaan waa la du VIP yaa ngoog sama jigéen ñi ñoo koy géré mais Ndeye Fatou nuyu naa la. mais Ndeye Fatou lii defar ko yombul ne. waaw defar ko yombul moom. ah defar ko yombul moom. yan coono ngeen di daj. waaw coono yi daj moom. lenn rek la mooy douche yi ci instant bi dafa bari. waaw te kenn du ko nettoyé nettoyé ci waat. ñun douche yi lañuy géré. waaw ak CNG lay CNG douche ak CNG. ñëpp dañu bëgg a dugg ci douche fii nii. parce que douche bi si. man. ndeysaan mais kon ay coono yu métti ngeen di laaj. métti yi dund ndax gis nañu ñu sa suuf. ba nga yegg fii ci kaw. ñaar fukk ci benn bés bi nañu bëgg a dugg. mais fii xanaa yéen ay ay ay dix personnes moo koy defal wala vingt. douze personnes ñoo koy def dix ci suuf la ci tabax yi nga xam ne am aar bi yëpp ba mu des yëm sat yëpp. waaw gis ñoo koy defal ñun ñi nga xam ne ñu tamit yeneen dix lañ faam. waaw ñoo koy defal. waaw amuñu salaire kenn fay ñu. amu leen salaire. amuñu fi salaire. waaw kenn fay ñu. dañoo toog di jàpp suñu place nii rek bu ba sa ba amee sa kër. jël ñu mooy liggéey moom bàyyi bële ci stade bi liggéey te kenn fa ñu amul salaire Bira Sène directeur seen seen président a waaw moo ñu jël par lamb te yàlla rek tax ñu fay. danañ fay te journée bi nga liggéey da lay fay. da lay fay mais yeneen journée yi lundi ba vendredi dañuy fay si stade bi sama dimanche moom week-end ñu fay si stade bi moom week-end dong la ñu la ñu am fay ñu mais yeneen jour lundi ba vendredi kenn fay ñu ne amu leen day fàttali nee na amu leen salaire yow noo tudd. amuñu salaire de. Uh-huh. yow noo tudd kóllëre ñu bàyyi ci stade bi ak yàgg. waaw foo liggéey 6 ans. 6 ans defe nga faa mën a gis sa bopp. Uh-huh. mais fayuñu mais ba tey bàyyiwuñu. waaw ndax dañoo xalaat ne situation bu changé mën naa am ni gis suñu bopp. dëgg la ndax foo liggéey 6 ans. waaw mënoo ne tey lii mooy sama salaire biir arène nationale. ñun li ñuy daj arène nationale amuñu fi salaire. Mm-hmm. loolu dafa metti mais man damay gis yéen ñaar rek ay nekk fii te ak lii nu mu bettee. waaw duñu tok dañuy jaamal ci tukku di genn lah, di tukku di genn bañ muy xéñ bay xet gi bañ tilim bañ bañ bañ dara fini ni combat promoteur dañuy tëgg combat nga ñëw ci ñoom du ñëgëti 100 francs jox la ko promoteur bi muy promoteur bi tëgg yow bën ki dembo ñay ko xéss xamonum tuddu mo fi tëggaat digënté ñam sa kooku daal lañu xamné ak doomu garçon ji moom na la tudd. Makan Meng Makan Meng. ñooñu moom wax dëgg yàlla macha allah. xam nañ ñun suñu gëdd ci stade bi. bu ñu tëggee ñun wax dëgg fu ñu nekk ñu njëkk dara teg ko suñu loxo. dégg nga mais ñeneen ñu fi tëgg. tuf dégg nga ma. boo ciy wax ne ko maa ngi leen ñaxal maa ngi xam nga yow yaa ngi leen di dugg du la faale. te yow fekk nga ñu ko yow gis nga yow yow ñu naan. ñun lu ñuy daj. gis nga waaw mu ngi noonu nag. kon boog ndimbal ak yërmande kon dafa war a daw. ñun dix personnes lañ fi. yàgg nañ fi mhm. am nañ fi six ans. six ans ba tey mënuñoo des. amu leen salaire. amuñu salaire arène nationale fayeeku wuñ ko bu dul kon dinañ liggéey ba weer dee. kon ngeen tuut buñ ko fi dañ ko fi dindi. te dañuy liggéey samedi liggéey dimanche loolu biraaseen nañu koy fay. billaahi wallaahi jigéen ñi. léegi naa leen mais leen ay jigéen dañ leen war a jàppale. wax dëgg yàlla moom. mais nee na 6 ans ñu ngi fi amul sax salaire ak fi ñu méttee. loolu dafa ñaaw a gëstu. Ah. war bi. Ah. Ah. ko. ndax da ngay taxaw de da ngay taxaw. maa ngi lay maa na trop war na yàlla. su ma yaram daw na sax. ak alxuraanu karim bi. léegi lan mooy solution bi Ndeye Fatou yéen ñaar ñi lan mooy ñu salaire baax di ñu ko fay loolu dong luñu bëgg ci stade bii nit ñi di dugg di tuuti douche yi ngeen nettoyé ak ak ak cabinet nu méttee defar ah. borom mi ko gën da koy seexlu loolu ah. dinañ ko a sant dinañ ko pompal soo waxee rek ñu ne amul directeur kon boog maanaam dafa war a am directeur ñaata milliards yow lañu def nii. 32. war nañu sàggan te ay salaire yu yu minimum yu minimum yoo xam ne du dara. pour war ko yàq. yow nañu waxante dëgg. Uh-huh. fu ñu def 32 milliards war nañoo def ay war nañoo teg ñu teg ay nit yu dëgër. Uh-huh. yow yoo xam ne saa yu ñu xëyee di fi xëy di ko toppatoo. yow xam nga ne arène nationale yow douze yëpp yàqu nañ. mais man ñeme moo dugg si douze avant. doo doo fa dugg. doo fa dugg. doo fii douze si ñu occupé ñun kese baax yeneen douze baax. naa loolu. doo suñu yii ak yi ci suuf yëpp a baax. mais ministère des sports nga lii dégg nga cri de cœur sama. ah ministère des sports war nga ñoo dimbale de. war nga dimbale ñii war nga ñoo dimbale de. Ah. Matar Ba jooyoon nañ ko suñu naqar suñu xarit bu baax boobu nga xam ne Matar Ba moom lañuy jooy jooy barki yonent bu ah. fi nekkoon faju na bu yàgg jooyoon nañ ko suñu naqar mu nekk di ñu dimbale mais Amadou Ba wax lañ ko Amadou Ba nag moo war a ñëw faj lii ah. lii lii lii dañ war a faj koo war a faj jug ci arène nationale balaa muy yàqu la wax wala jug balaa muy yàqu 32 milliards ñu di ko xool muy yàqu du du yoon. yoon jërëjëf. jàngoro jàng fi de. am na leen Amadou ma dégg ba recevoir ah, leen. waaw état ah. bi li ñu fere ci xaalis sa doyaas war koo yàq état bi balee koy defar fa beere. Ah. ko tabaxee doo ko bal doo ko fa beere. waaw su na bi nga xam ne génn chaque jour ay individu di fi génn bu ko nettoyer ba yàq kon nag nañ jàpp si nettoyer bi ça va pas. fii daal moo fi jàmbaar. Eh, yow dimbale ba yow lan ngay wax si ñu toog fii sa affaire. yéen ma la eh. man loolu kii may jàmbaar fa. kii du nga nga wax si loolu. du tax. six ans six ans la ne wax fayagul. waaw ah loolu moom mun ko see wax. di nga si wax nag. xam nga sax mun ma see wax. di nga si wax. parce que ay diggante liggéey loolu juróom benn at. Hmm. du benn fan de. du benn fan. aw ma nag après. damay bañ a wax ñu ni tax ma wax. waaw waaye juróom benn at nga liggéey ko ni fayoo ko. Ah. du yoon kii moom jàmbaar. kii tamit jàmbaar moom. kii ah. kii di kóolu kii. Réfat waaw d'accord sama jigéen ñi yal na leen Amadou Ba dégg yal na leen ministre des sports dégg yal na leen Macky Sall dégg ba recevoir leen incha allah.